aouzu billahi min ashaytaan irrajim bismillahi arrahman irrahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel di leen ziar tey ñu ngi ak yéen ci seen beneen video ci firi gént comme fan yëpp maa ngi ak yéen ci njaay àll yi maanaam mala wala rabu àll yi ci wolof juri kër yi def naa ci ay vidéo ba mu jeex ñu ngi ci juru àll yi danaa ñëw ci picc yi danaa ñëw ci rampa yi maanaam yi raam ak yëpp incha allah set yi aussi dinañ ci ñëw tey ñu ngi ci yéen ak bukki bukki ci gént di jàpp ci mala yi bon ci gént la baaxul à quatre-vingt-dix-huit pour cent bokk na ci mala yi baaxul ci dilaalaat yi maanaam tegtal yi bukki am ci gént la plupart day firi jigéen ju bon maanaam ngorowoo ak jigéen ju baaxul wala takk jigéen ju baaxul sëy boo doon listixaar gént gis bukki bàyyi mu ngo dana firi njabar léeg-léeg maanaam liggéey seex dana firi wax ju ñaaw wax ju yàqab der wax ju bon dana firi sax jigéen joo xam ne saaxir la maanaam jigéen joo xam ne aw saaxira la jabarkat la dinañ ñëw benn benn ki may njëkkee mooy jigéen bu amul jëkkër gént gis ci day firi góor gu dund dugg ci sa ci sa yàq sa àdduna ba mu yàqu yaxet baaxu jigéen bi jigéen bu amul jëkkër gént gis bukki booyee booba la ngay dugg ci ngoro wala bu la fekkee ci ngoro nga càmbaraat na ngay ngoro bu baax a baax day fi jaxasoo ak góor goo xam ne dina yàq sa dund baaxul bu fekkee la da nga gént ci biir gént gi dóor ko dóor métti ba rey ko day fi mucc ci pexe góor googu wala mucc ci danger bi dul ñëw ci yow mu ñi ne xale bu jigéen bu amul jëkkër gént gis bukki day fii tàbbi wala dugg ci ay lënt lënt dugg ci ay musiba nekk dugg ci ay xat-xat ala kulli xaal baaxul ñetteelu wax bi ñu ci wax mooy ñenn ñi dañ ne gént gis tidd ci xale bu jigéen bu nekk ci néegu say day firi njabar day firi sex maanaam liggéey bu bon bu nekk ci sa yaram bu jógee ci noonu wala ci ko mën a doon baaxul gént euh, till dàq ji la ci jigéen bu amul jëkkër bu fekkee jàpp la ci gént gi day firi nit ñu bon ñi nga ñi ma la wax ci kaw yàlla dana la wan nit ñoo na bëccëgu ndar kàmm duñu am ndam si yow waaye bu la jàppee di la dàq ji la ba lor la ci gént baaxul day firi noonu bu la lor baaxul kon ko euh, jigéen bu nekk ci néegu sëy gént gis tëdd day firi nit ku doy waar nit ku doy waar kuy def ay pexe pour yàq sa dund si pour yàq sa sëy pour yàq sa famille baaxul boo ko dóoree day firi mucc ci pexe ñu añaan walla ku añaan wala mucc ci pexe mucc ci cat dana ko fi kon baax na ci gént da nga gént te bukki màtt la walla bu xusi la ci bépp jigéen wala si képp koo gént dana firi ay nit yuy wax ci sa der wax yu ñaaw joo xam ne yàllu rafetul maanaam yàq der rek ci gàttal kon jigéenu góor bu dee góor góor bu nekk ci néegu sëy da gént di dox ba ci digg bi nga gis till baa nga dox gis till ci say dox daal di dox ba ci àll fu mu a doon day firi jamono yooyu nga nekk ci yoon woo xam ne baaxul yoon woo xam ne jaarul yoon mu musiba dana la fekk bu la fekkoon ci ab tukki ba doon li saxaara maa nga doon xool gént gis doon bàyyi tax na tukki ba këru bu la fekkoon ci projet bu mën doon baaxul alaa kulli xaal boo ko géntee xoolaatul jamono yooyu ci ban situation nga nekk nga gént mu màtt la wala mu xusi la ci bukki ci góor baaxul day firi noon yi la lor ba jekku la sax boo dóoree mbaa nga rey day firi mucc ci pexem noonu wala ci pexe noonu yooyu da gént gis ko nii rek dàq ci wula def la dara gis nga ko nii daal day firi xarit bu baaxul ànd ak ko xam ne waru leen ànd ndax bokku leen ci ko te dalay yàq balaa ñuy continuer ñu ngi leen di soññaat yi cangat yi dina wax naa leen ci vidéo yi may def nii yéen samay abonné yëpp maa ngi leen soññ jéem a def yitte pour am cangat bi li tax ma di ko wax day cangat bu yéeme lool waaw bu yéeme lool ci fànn yu bare bare bare bari nag incha allah ci kaaraange lool ci li nga xam ne ñun moom lañ gën a bëgg waaye surtout ci ubbeeku rawatina ko am da nekk ci yoonu wut baax na lool lool ci kuy jaay baax na lool ci kuy yéex a sëy baax na ci ubbeeku baax na ci bayre et tout waaye surtout ci aar la loolu amuñ ci sig sàkk ci kàttan yàlla incha allah ku ko jël nga xam ne am na ñu ñu miin càngat bi sax ñoo xam ne daanaka voilà ñoom weer wu ne daan ko laaj ndax xam nañ na ci nekk aywa euh, jigéen ji ëmb gént gis gént gis euh, gént gis bukki ci jigéen bi ëmb baaxul baaxul day firi coono ki xar-xar bi jafe-jafe ci sa ëmb baaxul mukk yàlla ci yàlla musal euh, voilà bu fekkee da nga ko dóor nag day firi mucc ci coono yi ëmb day da ngaa rey day firi mucc gis nga mala bu bon ci gént foo géntee dóor ko ba lor ko moo xam xaj la moo xam gaynde la moo xam segg la moo xam bukki la moo xam till la bépp mala boo xam dañ la wax day lore ci gént boo géntee dóor ko dóor métti wala baa nga rey ko day firi mucc ci pexe noonu wala mucc ci jafe-jafe góor goo xam ne kon jigéen ji ëmb jàppal nii bukki baaxul ci gént day firi coono ci sa ëmb bu fekkee jigéen góor goo xam ne amagoo soxna célibataire nga bukki baaxul dana firi àndandoo yu baaxul dana firi jaxasoo ak nit ñu baaxul dana firi jaxasoo ak nit ñoo xam ne lay lor boo géntee mu màtt la mbaa mu lor mbaa mu gaañ la day firi noon bu bono bono bu la lor ci gént baaxul wutal muslaay gént gis ci bu ñuul day firi xaritoo ak koo xam ne ci workat la ci wor la la jëm kon li nga jàpp bukki ci mala yi baaxul ci gént la ala kulli xaal ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te partagé wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu